sama xol bi cofeel bi fees na ko baywal bokki jullit yi bokki talibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waa daara yi soppe yi sëriñ ahmadu mbakke daarul moxti ñoo am mbégte di leen ak di leen yëgal ci ziar biñ baaxoo amal ci seen soppee boobu di sëriñ ahmadu mbakke daarul moxti mbokk yi jàppaat nañ ko ren 30 septembre 2021 mu war a doon buñ màggalee ba am ñeenti fan ren nag di doon troisième édition ñoo ngi ciy woo mbooleem ku bokk ci daara yi soppe jooju waaye nag rawatina mbokk yi nga xam ne dañoo bëgg a bokk ñoo ngi ciy woo ñekku mbokk yi di fàttali mbokk yi ne kuy ñëw na nga fagwale li nga xam ne mooy sas wi sas wi nag war a toll ci junniy dërëm ku man lu ko ëpp baax na ku man lu ko yées baax na mbokk yi ngir jaarale say addiye ci Wave mën nga jokkoo ak ñoom ci 77 883 37 22 am na Wave am na Orange Money boobu numéro ngir bëgg ci ay leeral jokkool ak Serigne Abo Mbacke Gànnaar ci 77 804 08 16 xalim banu saader def ko saada way ko ak di ko niite